alors salaamaaleykum internetu Sénégal tey ñu dalal fii raxu foire bi muy préparer benn événement bu mag comme chaque année euh, ren mu indi fii maître Gims indi Dadju dans cinq jours ñu dem ci spectacle bu mag donc ma bàyyi la nga nuyoo déjà balaa ñuy commencer. merci Aïda maa ngi gërëm maa ngi gërëm ñi seetaan Sénégal. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et puis foire bi gëj fi trop ça doit faire plus de ans parce que je me rappelle à l'époque euh, ba may ci foire bi ñu ngi nekkoon ci Soxna FM rajo bi ñëwoon fii ak rajo Dunia donc euh, j'étais nostalgique quoi le fait de venir ici ma ma ci foire bi vraiment c'est un bon souvenir quoi. am nañu amoo jot mais dans cinq jours événement bu comme daaw def nga ko mu marqué def spectacle impressionnant donc ren nga indi innovation indiwaat Maître Gims si boole ñaari frère ci benn spectacle. Mhm. lan lu tax sénégalais nga leen di gàttee noonu. bon écoute euh, man je suis passionné de la musique donc euh, j'aime la musique euh, yàlla def daal je l'ai ramené l'année dernière ça s'est bien passé et puis le feeling aussi quoi tu vois donc j'ai vu qu'il a vraiment apprécié man aussi pareil. ndax yàlla dafa def liggéey bi vraiment euh, ñu commencé ci affaire bi am benn complicité quoi et cette année ma ne foog ma indiwaat ko et puis vu général man su may def samay artiste euh, si je fais un plateau et puis cette année vraiment je voulais faire un plateau man kan laa war a mën a booleeg Dadju bu ko defee ñu am complicité quoi et puis l'ambiance euh, mu nekk une bonne ambiance ma ne kan laa war a mën a booleeg Dadju c'était ça en fait la question parce que Dadju dama ko signé janvier daaw ma ne pourquoi pas Maître Games Déjà, c'est des frères. Et puis, ça peut le faire, quoi. et puis euh, ma sollicité euh, le tourneur mu ne ma y' a pas de problème et puis yàlla dimbali ma euh, le tourneur de Gims moom moo yore aussi Dadju donc mu nekk benn facilité bu bu bu yomb ci man donc voilà li est venue comme ça en fait. yoo xam ne yu mag la dañuy cartonné instant bi te ñu ñoom ñaar ñëpp génnee album récemment. nu mm-hmm. ma su ma mënee wax ne bokk na pays Afrique bu ñuy njëkk a joué seen album donc loolu lan moo ko lan da nga xamoon dañuy génnee album. waaw bon ça normalement sax normalement sax en fait. avant de signer, il devait sortir un album en commun. C'était ça en fait l'historique. Dadju et Gims, ils devaient sortir un album en commun ensemble. Ben album boo xam ne ñoom ñaar ñoo koy way donc loolu moom ma gën a poussé sax ma ne waaw ça c'est vraiment le le le le jackpot en fait euh, et puis bañ demee ba ci digg bi ñu xam ne ne loolu ñoragul donc Dadju génne album am Gims aussi daal di remixé waat l'album quoi génne ci quelques sons euh, donc euh, mu nekk actualité ñoom ñaar ñëpp. tu vois et puis yàlla souvent buy def muy baax euh, ay mbiram kenn xamu ko daal parce que man xalaatuma woon ne moment bi daaju dina génne ñaari album donc euh, Games aussi pareil euh, vraiment yëfu yàlla la daal waaw donc fierté la et puis comme ni ñuy wax ñoom ñaar mosuñu leen boole sur une scène que ce soit en France ici parce que Gims il fait son show Dadju pareil c'est pas Gims mooy ñu invité Dadju c'est pas Dadju mooy ñu invité Gims ñaari spectacle la ñu boole ko mu nekk benn sur une même scène en fait. bëri nit ñi di laajte pourquoi nga focaliser wu ci daju déjà moom moo ko defoon Gims ñëwoon na fi ñëwoon na fi mais pourquoi nga Freddy nga. xam nga xam nga xam nga yàlla day def artiste dem ci dëkk waa dëkk bi bëgg ko daju ci man son sénégalais quoi parce que il est déjà amoureux de ce pays il aime le Sénégal il a fait beaucoup pays africains mais moom Sénégal dafa bokk ci dëkk bu mu gën a bëgg et puis sénégalais daal di koy delloo. ma gis ne xale yi dañ ko bëgg lool il est vraiment aimé par la jeunesse euh, te man c'est vrai que bu ñuy def yu mel nii lu xale yi bëgg rek la ñu war a dox euh, donc moo tax daal euh, ma ne le choix est bon quoi donc te yaakaar naa ne du yem fii quoi incha allah. ci spectacle bi am na ay artistes sénégalais yoo xam oui bien sûr on a Pamadian on a Sabel on a on a Chérifou Diop Sebren on a Dieyla on a Elzo Ndiamdong aussi quoi. voilà euh, daaw tamit daju comme li ma ko waxee woon dafa spectacle bu mag euh, ñu bëri amoon nañu wax ne pour euh, cocktail photo ak daju il faut payer cent mille francs ngeen génnee ay package yoo xam ne pour loolu est-ce que ren am na ak critique yu ñu defoon daaw. est-ce que ah, malheureusement je regrette en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu qu'on refasse ce qu'on avait fait l'année dernière mais ñun Sénégalais en fait on essaie tout le temps de de salir quoi. quand c'est positif bu ñu amee lenn rek luñ ci mën a yàq rek ñu wax ko mais xam ngeen ne photo ak daju cent mille francs loolu mënuñu ko wax kenn en fait ñun ce qu'on avait dit l'année dernière c'était le cocktail déjà c'est-à-dire euh, Radisson xam nañ ni mu chéré da ngay lekk da ngay naan ba pare ñu ne la ci loolu am nga entrée VIP ci loolu da ngay assister euh, euh, conférence de presse bi ba pare am artiste bi à tes côtés mu signer sa autographe je pense que ne cent mille francs ça vaut le coup tey jii Daju ay concert yu muy def France VIP bi tu payes plus de 100 euros 100 euros ça te fait plus de 65 000 francs CFA donc yow li ñu lay jox yëpp pour nga mën a gis artiste bi dara looy wax surtout yenn médias yi quoi parce que mën naa ci médias yi la jógee parce que les fans ñoom ils sont fans quoi ñoom ils s'en foutent soit le prix mais médias yi nga xam ne ne ñoom euh, au ñu jël événement bi rafetal ko ñu bëgg ko salir la veille du concert moo tax yàlla lu mu ne day baax day baax kenn ci dara amoon nañu ko bëggoon yàq di commencer di véhiculer ay cent mille francs pour faire une photo na Sénégalais xam ne man raxu lu ma ñor mooy sama dëkk Sénégal je me battrai jusqu'au bout je me je me donnerai en naam lépp lu mu mën pour que man li may yëngu sama musique ma def ko euh, euh, ba mu leer na li may def waxuma la Sénégalais mais ñëpp dañ ci am fierté il faut que nit ñi xam ne du tey laa commencé. dama yàgg ci li may def dama yàgg jël artistes sénégalais yóbbu leen en France un peu partout donc su may ñëw di def lii Sénégal gën a méttee donc il faut que nit ñi yaatal ko jàpp ci c'est pas Rakhou c'est le Sénégal il faut nit ñi comprendre loolu euh, mais li may wax encore une fois rek damay sant yàlla yàlla mooy def ay mbiram yàlla mooy joxe yàlla moo mën euh, te ñu ngi xëy di waajal benn affaire xamuñu sax ba xam dinañ ko fekkee. nañuy bàyyi xel ci yàlla ndax bu ñu bàyyi xel ci yàlla rek yu bëri duñ ko ñemee def donc nañuy boole xol yi nañuy jàppalante il faut qu'on ensemble bu ñu bëggee avancer man daal loolu mooy sama philosophie quoi. mais mais mais billets yi nag raxu ne nañ saf na sàpp nag billets yi cher waaw xam nga xam nga tey jii mhm. euh, sénégalais bu ñu waxee dafa cher ils n'ont pas compris parce que euh, concert sénégalais spectacle sénégalais en France boîte de nuit. tu payes 20 euros minimum. 20 euros, ça te fait 13 000, ça te fait 13 000 francs On te dit, le show d'Adju Gibbs, Ponga Gislen, tu payes 15 euros, euh, tu payes 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA. Ça te fait quasiment 22 euros. loolu mënoo ko sax xalaat France te fii la gën a méttee non mu dama ne fii la gën a méttee xam nga tey jii bu ñu état jàppale woon sponsor yëpp ñëw xëy na sax du demee nii. daaw j'ai fait daju aw ma sponsor est-ce que man dinaa kale sama artiste huit mois avant neuf mois naan noon naa def entrée bi cinq mille francs parce que danañ ma jàppale su ma gisul kenn kuy sonn en fait il y a certaines même si la salle est pleine tu t'en sors pas en fait fallait que mu demee nii ndax lii mësta am sénégalais bu ñu xool xaalis bi nañ ne lii mësta am nulle part ces artistes la les réunir au Sénégal pour une première bu amul ci leen dëkk xëccoo nañ ko yàgg na donc nañu bañ a xool loolu daal. Euh, dama lay laaj dernière question mooy euh, indi artiste étranger mu ñëw jouer fii ak yóbbu artiste sénégalais à l'étranger ban moo gën a rentable. ba moo gën a. rentable. ça dépend parce que ñun tey jii artistes yu ñuy indi fii c'est pour man c'est une confirmation parce que c'est des artistes yoo xam ne ne c'est des artistes renommés même suñu artistes yi ils rêvent de faire des duos ak ñoom. te jii ay disque d'or ay disque platine. li yaa ngi jàppale ci côté boobu. Euh, euh, non non xam nga xam nga euh, man je suis contre intérêt quoi je n'aime pas ça tey jii artistes yu bari tey pour mu liggéey ak ñoom dafay metti des artistes sénégalais laa bëgg expliquer quoi il y a beaucoup d'artistes ils ont changé ils ont essayé de voir autrement xëy na man ak ñoom suñu philosophie nekkatul benn te je le respecte ah. parce que man dama bëgg lu carré lu lu dëggu lu sincère euh, euh, man bu ma sañoon suñu waykat yi fu ñu wax ci musique africaine dañuy bokk ci numéro un mais euh, c'est compliqué mais su ma ñëwee ci sa question est-ce que c'est rentable pour man les faire c'est rentable parce que parce que sa image la quoi tu vois man amatuma lu muy prouver ci les artistes sénégalais ah j'en ai quasiment fait tout le monde amatuma lenn lu may prouvé ci jël artiste sénégalais tëggu ko France pour ne waaye je le fais non bu ma ko defee pour jàppale la mais c'est pas pour ma dire que waaye je vais gagner des sous wala wala oui ñoom dañ may jox buzz. no nee nañ nag mais xaw nañ la mere nag. lu tax ñoom nee nañ ay gims nga fi indi ay ay daju ñoom ñu nekk fi di cartonné fii jàppale woo leen. kam moo la wax loolu danga may wax xam nga man. non artiste yi attends attends attends Aïda Aïda Aïda je suis. déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma non déglu ma. yaakaar naa ñëpp xam nañ ma ci dëggu ak dëgg xaw ma wax lu ma xamul xaw ma wax lu ma mënul xaw ma waxantu euh, Sénégal am naa ci moom respect ndax gis naa liggéey bi ngeen di def bu ñuy toog fii di waxtaan ñuy seetaan waruñu leen nax duma mësa wax lu dul dëgg ndax dama naa mënuma toog di fenn ki may xool bu dee dafa am artiste yu ma mere danga may wax ay tur nga ma raxu diw wax na bu dee am na ak moom histoire ma wax ko wala moom bu toogee ñu jàkkaarloo mu wax ma euh, amuma problème ak benn artiste sénégalais j'ai tout fait pour les artistes sénégalais j'ai donné tout pour les artistes sénégalais amul benn artiste sénégalais bu may xool naan ki waxul dëgg j'ai beaucoup fait pour la musique sénégalaise euh, bu dee am na ay artistes yu ma nañ ma wax man damay woo benn artiste pour bëgg ko def France mais c'est tellement compliqué pour ñu ne ma ma woo la ne la Joe est-ce que tu es disponible telle date non non je je cours derrière ah pour ñu wax ma déjà la disponibilité wala bu ñu xamee ne bëgguñu ma def ko il me donne des prix yoo xam ne ne mais boo ko waxee ne la non mais c'est pas possible quoi et tout ça j'ai compris quoi ku bëgg ñu liggéey ma porte elle est ouverte ku bëggul nag ñu liggéey nga xam ne loolu la yàlla tudd. waaw parce que man je ne vis pas que de la musique maa ngi sant yàlla quoi waaw. d'accord euh, euh, ma bàyyi la nga tàggatoo ak préparatif foo leen toll. waaw ñu ngi ñu ngi musée bi Bon, écoute, euh, on a voulu changer un peu d'un petit musée des civilisations noires. Et puis ça parle, de, de la civilisation noire. Euh, c'est un musée, voilà. Euh, même sur l'esplanade, je damay wax Sénégalais, nous dem di xol musée bi quoi. boo fa demee di nga jang lu bari ci histoire africaine. Euh man may wax rek mooy na nit ñi téla ñew euh xam na né événement bi du événement sénégalais kese Monde entier bi yëpp ñu ngi ñuy teg bët ci événement bi na nit ñi ñëw jàpp ci pour mu nekk une réussite totale na nit ñi ñëw ñu daal di fête na nit ñi ñëw xam na ne esprit bi c'est un esprit positif si je le fais c'est vraiment pour montrer que euh, Sénégal fait partie des meilleurs pays africains sur le plan culturel donc euh, on peut le faire et on l'a fait et on va le faire incha allah donc euh, na gars yi dem jënd seen billet bu ñu bàyyi ba dernière minute parce que maintenant c'est jour J moins cinq euh, di gërëm nag partenaires yëpp di gërëm sénégalais yi di wax ne vraiment c'est le Sénégal qui gagne quoi c'est pas Rakhou Voilà, merci Aïda. Mais dina am conférence de presse. Bien sûr, il y a pas de problème. On fera une conférence de presse. Dinañ leen wax naka lay demee fu muy amee quoi. Bien sûr, sans faute, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Sénégal. Okay, Ciao.